li làmb nañu ak li làmb bañ ku régulier mais ku dóor si loos bokkul dóor si kullu boo waraxee bokkul saako yi fekkiwul kenn yéen a koy fekk ñu suñ la leen boole moo leen taxale waaw dama la mu waxaan ak ñoom ñu xool situation bi laata ñaari mbéy mi ak baaxee mu ne ko at bi sible na ndeysaan Gackou 2 ak Pokola Baldé Gackou 2 moo boot ci mukaayam Pokola boot ci mukaayam soo déggul mooy maanaam soo déggul mooy soo déggul mooy Gackou 2 mooy war ginnaaw Pokola lañ jàkkaarloon xeex nañ ñoom ñaar combat xale day gaaw waay daan classico la ama classico Fassar Real la waaw classico bi génn ak Pikine la xeex nañ ñoom ñaar xëy Gakko ngi xeex Gakko ngi dóor ndeysaan Gakko ngi dóor dèjà dóor ma dóor ba dóor mu daan doom ba dóor mu daan doom ay waay Gakko dóor Pokola ndeysaan Gakou doo Pokola xeexal ñoom ñaar waaye Pokola da ngay jël ñu ñëw Gakou maa ngi góobu daanu Pokola maa ngi góobu daanu Pokola maa ngi góobu daanu Pokola maa ngi góobu daanu Pokola génn na se Pokola Gakou doo Pokola Gakou doo mu xool na xew mu xool na xew mu xool na xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew lu xew ñu xool lu xew ñu xool lu xew ñu xool lu xew ndeysaan ñu xool lu xew ñu xool lu xew lu xew ñu xool dañu xool naa la làmb da noonu ndeysaan masaar bi dafay wax ak moom masaar bi masaar bi dafay wax akala xant xant gi la gën dawari si ñëla de xero xant yi xero xant si tàngi am dawar si ne tàngi wala tàngi ndeysaan ñu ma teere ala danaa si téeméer ko dinaa te Sall tey takku ngeen. combat bi combat bi. combat jafe la. combat jafe la. parce que xam nga dañu toll. combat dafa tudd yéen ay ji. waaw loolu kii laa xam. bii loo gën a tudd. waaw. takku ngeen. parce que Adama xaalis ngeen. xale yu mbër. ñoo ko Sénégal bi mu def papa ak tontu yaa xam ne fa la mu ne àlleen ma bëti ñaaw mu ne fa la yem mu ne bu ak tontu la mu ne àlleen ma booy Dakar yaa xam fa la yem bu baax ak tontu la mu ne àlleen ma bébé jéem waaw loolu bëre bëre ñoom ñaar waaye waaye Pokola dafa jël Pape Sida ko Pokola am na deux défaites Dakar na benn défaite am Ibi si yàlla giri bu Malika bu gaañ mais naka daal Pokola Iba Mar dañuy jiiñ non am na yoo xam ne seetaan nañ ko wala mënuñu ko wax amuñu ko yéen ndax Gackou 2 bi premier combat bu doon Gackou 2 di glace bëre tuddoo c'est que daanu si avenance dabante la te fi nga xam-xam yam foofu la sax def croisé voilà. Bokala dafa bëre bu bu giri bu Malika bëre Dame Souguer bëre dë bëre serpent mu bëre mu bëre Boulal bëre mu bëre Boulal moom Bokala Baldé kon tey jii moo war a ñëw pour confirmer si boppam xam nga ne Gackou doomu bëre na ak Sadio man laa mu séeréer laa xam. waaw bu déglu ko nag caatu yëf caatu yëf am ci kawam ndam. waaw man caatu yëf. ba tax ko doon teel a wut de. waaw cey Pokola ndëgum tax ma ko ko indi laa ko te ma ma ko ko indi dafa pare na mu toog si géej gi day dugg génn mais saa boo paree toog si géej gi moom la lay jéem ci gànnaaw ci lépp waaw nga doon da ngaa doon séeréer xam nga loolu la ma yëg xam nga dañoo dañ daan sotti mbir galaaj nekkoon si kamay dana jamono dox rek tax ñu bàyyi si nga bàyyi dana jamono dox ñu bàyyi si nga bàyyi rek topp làmb waaye fa mu yàgg na si asaan wax dëgg noonu wax si nga baraage noonu waa Guèye yaa saan Pokola Baldé yi ne leen gën a ñuul ji waaw Pokola Baldé yi ne leen waaw man xeetu ngeen di Pokola bi laa xam pour lan la xeetu ngeen di Pokola bi laa xam pour lan la pour lan la waaw bi nga xam ne xeetu ngeen di pour lan la pour lan la waaw dafay dafa mel ni immigration de solo loolu.